CM2. lan moo ngeen seen waajur yi génn di dox moo tax ñu génne fii. grève léegi lan ngeen bëgg yéen jàng. Ah. léegi kan ngeen kan ngeen kan ngeen di wax seen i seen i problème. Macky Macky Sall la ñu suñu problème pour mu jàppale ñu dañoo sonn duñu jàng surtout ba ñun élèves yi def CM2 ma ñun élèves yi def CM2 war a def entrée en sixième duggee huit wàcce neuf heures maître yëpp dem génn bàyyi ñu fi te dañoo sonn yaanaa maar ñu wax papa Macky Sall mu jàppale ñu. ñun waa Tor ah, population yi ak parents d'élèves ñun ñëpp dañoo génn tey jii di ñaxtu li xew ci njàngale mi metti nañu torop vraiment ñaaw na trop ndaxte bu ñu xoolee réew bu laa dox il faut que mu am éducation bu baax réew balaa mën a avancer il faut que mu am éducation bu baax te ñun suñu éducation fi mu toll nii dañu ko ñaawlu dafa rafetul ñuy toog ñetti année yoo xamante ni chaque jour dañuy yeewu ak i grève te grève yooyu état mën nañ koo régler niñ ko mën a réglé man damay wax benn benn damay wax lenn lenn si li si jiitu mooy ñoom ñi nga xam ne ñoo réew mi la majeure partie seen doom nekkuñu fii te ñun amuñu sa passe bu ñu suñu doom yi pour ñu dem di jàng jee faneen bon nag bu fekkee ñoom dañoo jël seen doom yi yóbbu leen Europe bàyyi ñu fii ñun ñu ñu ñu jàngalkat war a jàngal suñu doom yi ñun ñu nekk ñoo xamante ne ñu dañu aspiré situation bi nga moo nekk si réew mi bon bi ñoolu dañuy metti trop ñu wax leen ñu jàppale ñu si ñu woo toutes les Euh, ki autorité du Sénégal ñu woo chef religieux yi ñu woo église bi ñëpp ñu dimbal ñu si ñu waxtaan ndax éducation man am avancement ndax sonn nañu instant bi nii vraiment loolu laa amoon lu may wax ci loolu. gis euh, ñu dem bitim réew loolu aussi gàllankoor la waaw loolu gallankoor la fi ndaxte ay jamono jafe woon na sax nga gis fi étudiant mais euh, nit ñu góorgóorlu ak jeunes yi. wa dañ doon bàyyi école teel dem dem jàngi safoor wala ñu dem jàngi laneen wala ñu dem émigrage dem biti bitim réew te gis nañ fi sax ñoo xam dañoo amoon bac ba pare waroon doon ñoo xamante ni vraiment ñu amoon taxawaale ñu mënoon a jàngale ñu dem def moodu moodu te loolu loolu dañ ko doon ñaawlu mais tamit situation yi mu ngi renversé ndax jeunes yi ñu ngi prendre conscience xam lan mooy éducation xam lan mooy njëriñu njàng ba tax na lu ci bëree bëri ñu ngi changé depuis 2000 léegi mu ngi augmenté wu nombre baa ngi augmenté wu dañu ñaan tamit autorité yi ñu gën ñu see jàppale di jàppale jàng jàngami di jàppale tamit e-, élèves élèves yi parce que étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk feenee dañuy subir ay ay ay ay ay coono yu métti métti te coono yooyu day leen di tax ñu découragé pour bañ a jàng dañoo bëgg tamit ñu jàppale leen si ba tax ñoom ñu mën a gën a góorgóorlu si njàng moomu wax si